jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb mbokk yi nuñ nañ leen am kontaante ak mbégte comme niñ leen koy defalee saa su ne démb dafa nekkoon journée boo xamante ne journée bu spéciale la ci làmb démb ñaari làmb ñoo am arène nationale mu ngi doxoon ci diggante Jackson ak Naaru Sokaas mu nekkoon combat boo xamante ni combat bu neex la loolu yëpp dinañ ci ñëw ci jàngat bi tey euh, démb même chose fële ca fi nga xamante ne mooy terrain gaal gi voilà euh, stade Iba Mar Diaks production moo ñu fa woon mise bi di cinq millions mu teg fa cinq millions gis nañ daanaan yu bari ci làmb ñëw nañ beneen innovation bu bees ñëw na ci làmb luñ daawul gis ci dakaar gis luur léger ak poussière mu nekk loo xamante ni vraiment bari na ay jàngat yoo xamante ni dinañ ko ci jàngat waaye loolu yëpp da ngeen koy gëstu ci jàngat làmb ji euh, tey ma dalal xale boo xamante ni doomi parcelle la làmb am ci moom yaakaar démb mu ñëwaat ci làmb wanewaat beneen xar kanam wane ni xale la am na jom bokk na ci làmb te lépp loo xamante ni ay naataangoom wala ay moroomam dañ koy am ci làmb moom war na ko mën a am ci làmb ndax boo ko xoolee corpulence bi naam baax na bind bi baax na te am na sañ-sañu bëre kooku mooy Mbacke fay ginnaaw loolu dañu koy bàyyi mu nuyu mbokk internet yi su ko defee ñu wéyal waxtaan bi Mbacke maa lay nuyu ndam neex na de. waa jili maa ngi lay fay onze billah hmm. bismillah inna wane yàlla jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba. jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul hmm. gannaaw ma sant yàlla julli si yonent bi sant suma ñaari waajur bu baax a baax hmm. di sant suma sëriñ hmm. baax a baax a baax waaw ndam neex mooy parcelle un ba vingt bi ma dëkk muy indi douze waaw dem gis naa yi jàpp nañ si bu baax bu ma limee rek damay juum mag pa ndaw xam xale yi ñëpp dañ cay jàpp Hmm. parce que dem ba ma ñibbisee ni ma doon teerloo wër na yàlla mënu ma tee sax sama hmm. waaw di sant waa parcelle ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp gaa yëpp ci jàpp. Hmm. waaw bu ma limee rek damay jum. démb moo nekkoon sa ñaata combat. démb moo nekkoon sama huitième combat. nga am ñaata victoire. am na six victoire. six victoire. waaw deux défaites kan moo la daan. Euh, kan moo ma daan laaj kii moo ma daan Baaba Maal ak boîte vocale. Baaba Maal ak boîte vocale. nga daan kan ma daan kan ak kan laa daan sax ma daan petit ba démb daan naa ko. petit ba Tidiane Faye numéro 2 bu Tëngéej. daan nga ko waaw. Hmm. ak Modou Baye Fall. Hmm. donc meen. waaw Modou Baye Fall daan naa ko. fan instant nga nga ko daane mu nekk combat boo xamante ni démb. ci wàccaay mm-hmm. bi. Mm-hmm. mu mel ni bi ngay génn sa kër. ma mm-hmm. malgré maa ngi doon gis statut yeeg yu mel noonu. mais génn bi mbooloo moomu topp la. ci xale bu ndaw. bi ngay génn lan nga yëg. kontaan contentement content rek laa yëg ak mbégte parce que tamit nit ki moom mun na mun naa ne cër mooy lépp quoi. parce que damaa dëkk ci gox boo xam ne tamit. waaw foo romb rek moom comme yéen ngi def fi mbër nuyu ñëpp. déggee ñëpp ñëpp jàmm. Hmm. waaw parce que yi dem dañu ma yéene woon ndam quoi. Hmm. parce que dama tegle woon deux défaites affaire yi métti trop. Hmm. yi dégg lu ne. déglu sama boy yi ñoom Laurent. dañ doon dégg lu ne ñoom ma seen fay bookar. suma xarit. Pape Ndiago suma miir am yi ñoom dëx. gars yi dañ doon dégg lu ne. waa koñ bi booy dañuy dem di ketti sax ñuy dégg lu ne. mais teewul ñoom ñu jàpp. Papa Ndiaye tamit maa ngi koy nuyu. moom tamit papa daf daf maam dafa am lu mu dese sax wax moom. Papa Ndiaye di nuyu yaayam Fati. Mhm. waa kër gi yëpp maa ngi leen sant bu baax di leen gërëm. Mhm. parce dama daan jógee entraînement ma daan teg entraînement mu jógee mu yóbbu ma këram ba guddi gi la may doog a libéré may ñibbi. di ñaari komba mhm. daanu. troisième komba bi mun ngaa tegle trois défaites. te boo tegle trois défaites li ci ëpp. sa tànk day génn làmb ji. ngay génn sa kër. gis mbooloo mi la topp. gis ñiy ànd ak yow coono gi ñu ciy daj. mu leer ne la yaa ngi dem waaye ndam. yàlla moo Mm-hmm. jom ak fulla ak fayda nit ki da koy wane. Mm-hmm. bi nga demee bay génn ba dugg stade. lan nga yëg moment boobu. waaw am yëg-yëg rek parce man bu may génn suñu kër. Mm. man moom leeroon na ma ni tey moom. Mm. parce que maa ngi koy wax booy bi may ngem. Mm. bookar maa nga tër ma rendi ma gën a yomb nga daan ma. wallaahi azim nii laa ko waxee billahi ku dee ak sa bàmmeel nga tër ma rendi ma moo moo tax nga daan ma bàññees borom moto yi. Moussa Ndiaye Kop Sall maa ngi koy nuyu bu baax. Mm-hmm. booy dañuy sonn ci man. mais dem bu may génn suñu kër dama maam am mbégte laa am. Mhm. famille feet famille Wali Ndiaye. Mhm. doomu meen Wali Ndiaye Njaw. Mhm. Njaw dama koy bàyyi ak yàlla Pa Ousmane Dieng. maa ngi siyaar di nuyu paa bi seen papa. maa ngi koy siyaar bu baax a baax a baax. parce que maam sama kër la foofu. dinañ ñëw ci loolu dinañ ñëw ci nuyoo beeg yëpp. mais dama bëgg ñu ñëw ci combat bi bu baax. bi ñu nee suba la combat bi. ci guddi gi. ay booru minuit une heure ci lum la fekk. ay booru minuit une heure boobu nag. mi ma fekk yaakaar naa may nelaw. nelaw. waa yaakaar naa ko bu ma juum. Mbacke heure boobu nelawoo ko. bër jëmewul nelaw heure boobu. wallaahi mi ma fekk may nelaw. Hmm. yaakaar naa ko man yaakaar naa ay minuit laa dugg si koñ bi. ay minuit la dugg ci koñ laa dugg minuit ay presque ay vingt trois heures et demi rek. nga dugg si sa si seen kër. Ah. ba mu dugg see parce que dafa am fu ma demoon ma Papa Ndiaye ñoo àndoon. vingt deux heures. vingt trois heures fu mu la fekk boobu mi ma fekkoon ma nekkoon ci ay dernière classe <laughs> dama laa gis kat loolu ma jaaxal ma yor moto waa <laughs> gis daal nga am nekk si euh. ay dernière kookooy Papa Ndiaye la boobu hmm. moom laa supporté woon ñuy ànd hmm. parce que dañoo nekkoon ci ay affaire lamb ji dafa metti woon hmm. billaay walaay lamb ji dafa metti woon parce que booy demoon nañ ba benn instant booy yoratuñ dara yoratuñ xaalis mais lépp rek sama njaago bi la njaago or bi Laurent maa ngi koy nuyu di ko sant booy koñ bi ñëpp ñëpp bu ma leen loraan rek tu lim naa booy koñ bi yëpp. kon njaago përëm dafa am. waaw njaago përëm am na <laughs> mais kii njaago ah or la. <laughs> ah bon waaw njaago përëm di nuyu magam. kobal hmm. sama yaay sama lépp ñoom Mati Ndiaye. Hmm. njaga taaban. Hmm. wallahi aw ma fayam. parce na capot ñëw ci komba bi. nga dugg si gis sa adversaire. arbitre bi sifflé Mm-hmm. nga jiital tànk ndijoor. waaw droite. waaw mooy tànk ndijoor waaw boobu jiital ban pied. moom mu jiital gauche. boobu jiital gauche. yéen ñaar bi ngeen bi ngeen bi mu tegee tànkam rek nga teg sa tànk. Mm-hmm. lan nga xalaat ci bëre bi. waaw bi ñu tegee tànkam man leer na ma ni kii dafa ñëw pour xeex. parce que dafa teg gauche. te saa mm-hmm. waa ji saa buy mimé day mat. waaw Papa Ndiaye tamit entraîné ma ci loolu. sama coach entraîné ma ci loolu. grand coach Kandji. ma teg pied droite moom lamb ji yëpp dafa ma ne cokkaas ko day daw moo ko dóoree dama ko cokkaas mu daw ñëw. Mm-hmm. ma arrière deux pas moom mu daw sànni gos duraat ma cokkaas ma dóoraat ko. mel ni mm-hmm. kuy mime mooy mime daw jaay ak moom jàpp. ku ko dóor sentir nga ni dal na. waa dal na dal moom dal na moom wax dëgg ko dóor dama ko damay mime dama koy arrêté arrêté droite laa koy dóor rek mu taxaw. Mm-hmm. boobu la quoi dama koy freiné. ko ci ban moment nga xam ne frein bi dal na ba nga daw songu ko. waaw frein bi dal na mooy bi muy bi muy temps deuxième coup bi. bi boobu dafa daje coup Mm-hmm. dafa daje moom boobu fekk na moom mu sànni ay gauche droite am ma daje ak moom daw daw jàpp wàcc suuf daw jàpp ko. Mm-hmm. bi ma ko jàppee nag ma daw sol ko ñaari naax mu ne nii ma yëlëb ko wër ko ndomb. mu mm-hmm. daw di moom mbotkat la mu daw di mbot ma dóor ko ans mu tourné. ci laa daw ko. yegg ci ginnaawam. bi ma gisee gis naa ko bi muy daanu. mu ngi mel ni ku la yóbbaale. bi waaw di ma bravo parce que man instant boobu bàyyeeku naa quoi. instant boobu man bàyyeeku naa dama ko yéen dóor ko suuf. ma xam hmm. xam man moom bu ma la yenoo bu ma la dóor ci suuf lool ndox du ma la bàyyi damay ànd ak yow. Hmm. léegi mu fi ma ko téye mu téye sama loxo bravo la ne parce que hmm. bi nga ko dóoree protestant bi naaw sentir nga ko. am na protestant bi sentir naa yooyu yëpp koy gis <laughs> protestant bi dem. <laughs> dem loolu nga ñoo ñoo waroon arrêté combat man gisuma leen loolu daan. dem moom daan rek la moo doon demee quoi. daan nga am nga ndam. fan nga jëm. waa fi ma jëm mooy sumay morom rek. ñan ñooy sa morom waaw du ma lim kenn nag. non boo limul moom doo am combat. parce que say nataangoo faw ñu xam Mbacké Faye ci ban catégorie. Ada Fass na ñëw ñu bëre. non xalaatoo ko Ada dugg Fass dugg parcelle ñaari yoon. wallaay daan am fa ñaari ndam yu rëy. dina jël xalaatu loolu aada du gees aada bu ñu tëjee ci néeg tegal ñu musu biskit ku daan yeey du yeey benn wallaay azim. baa ji li man damaa mën a bëre te dama mbër laa mais aada moom raw aada moom na la fi mu toll nii. waaw mun na ma raw ci xam yi fii ku ci nekk da nga am sa promoteur. aada mhm. tey aada ñaata combat la bëri. aada faas. bëriwul bari na bëriwul de. bëriwul. Mhm. amul bëri na bëriwul. aada mhm. kan la daan koo xam. rawul la daan te rawul bi ñu koy da aada bi ñu koy daan paala mooy bi ku muy mbot noonu yóbbu ko top 5. kooku paala kooku tukki bu yàgg. aada daanu fi benn mbër bu saf. ku dul tafa mbër la fi bëreel. arab à ah, daan na dugg na Ada Fass jeexal na parcelle dugg na parcelle ñett yoon sax. dama kan la fi daan kan. daan na euh, ardo. daan bébé bis mi. daan bébé bis mi daan tafa mbër léegi mu jeexal parcelle mais comme daan rek keneen bu ma jëlee dootul dugg di parcelle. ah manqué bon. Ah. wallaahi bu ma jëlee dootul dugg di parcelle. bàyyil nag bàyyil bu sedd. non dama bàyyi Ada Fass sama morom la. lamb moo waxul dëgg rek mais heure bi booy yëpp waroon naa leen romb fii. budul Ada Fass kan. bëri booy yi fii leen. ay Daouda Sandwich yëpp samay morom lañ. Eh, bu ci dugg Daouda hmm. Sandwich men rek fëgg la. tarki daal samay morom lañ. Eh, booy yooyu. ñu bëre grand combat bi sax dem ku ma jox mu bëre ak moom. billaay wallaay wal kitaab bi barki alxuraan. man de Mbacke Faye xaw ma lan lañ la dee ku lay ngemb. non deewuñu ma ah daa daa mel ni dee nañ la. général général eh. yor lépp général Bamba. ah man damaa waaru kat damaa xam ni eh, ni nga ni nga ni dëggalee sa bopp. Mm-hmm. dëggal sa bopp nañ ma jox diw nañ ma jox diw ba ci grand combat bi bëree démb. wallaahi bu bu làmb waxoon dëgg. baa jëlee échange maa ngi bëri ay quatre grand combat wala cinq. dama amoon blessure bu metti mm-hmm. blessure bu def deux ans si man. blessure deux ans billaay wallaay bi ba dugg na sax trois ans. Modou Lo bombardier bu njëkk ba. Mm-hmm. laa gaañu woon ci tànk. Mm. barke alxuraan di faju di faju di faju di faju sama defet yi ma teg lay nii yëpp blessure boobu dama yenu nit sax sama genou bi débuwaate wu ma tegaat. blessure boobu nga doon bëree en même temps. non non bëree moom boobu fekk na instant faju naa bu mu wér macha allah alhamdulilah. Mm-hmm. sant naa yàlla bu baax li ma ci mënu woon lépp maa ngi koy mën. Mm-hmm. mais tànk bi dafa métti woon. booy maanaam demoon man demoon naa sax barki alxuraan ba nar a xaadi si làmb. mais mm-hmm. booy ñoo ma andiwaat sama booy koñ bi. ne yow waroo bàyyi dem booy dañ doon jooy. bi ma daanee dañ doon jooy ñu am yëg-yëg nga xam ne booy am na dañoo am yéene ci yow. Mm-hmm. muy booy koñ bi. Mm-hmm. barke alxuraan maa ngi sant bu ma limee rek damay jum du ma lim ken mm-hmm. maa ngi sant waa koñ bi ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp. parcelle un vingt six di sant gox bi ma dëkk mooy unité douze. sant tamit sama waa dëkk waa ceeb. waa ceeb maa ngi sant bu baax di leen wax nañ gën a jàpp. affaire dina ñëw parce que nit ku amul lu dul dëkkam amul lu cosaanam. maa ngi sant bu baax ceeb di sant waa Fatick di sant waa Ñaaxar. sant waa Jurbel sant dëkk séeréer yëpp. képp kuy ñaanal Mbacke Faye Mbacke Faye dëkk séeréer yëpp. promoteur bi tëgg làmb ji démb jéy seen. waaw loo koy wax waaw di ko ñaanal rek moom moom borom baax la ko waa te wax dëgg yàlla li mu waraloon ñun yëpp def na ko. Hmm. waaw def na ko li mu waraloon ñun yëpp def na ko lim ñu waxoon tamit ñun gis nañ ci suñu bopp. waa di ko ñaanal rek di ko wax tamit ñu ci ci ginnaaw prochaine journée bu ñu ci mënee dugal. Liss Ndiago Tapha Mbeur. Tapha Mbeur. waaw mais làmb la di ñaanal Tapha Mbeur suñu borom may ko ndam. bëgg nga cee bëre. bu su bu buñ ma joxoon tey avance bi boo ma ko joxoon ni ma yóbbaale ko comme avance bu mu mën doon nag boo ma ko joxoon ah, am na solo ma lay jaajëfal bu baax a baax. Mm, waaw waaw hmm. di di santaat yàlla bu baax nag. Hmm. di sant sama waa dëkk waa ceeb. Hmm. sant waa parcelle un ba vingt six. Njaga Taabaan. maa ngi koy sant bu baax Baskapo. maa ngi koy sant Bañas Go Faye. Go Faye. Go Faye le futur maire. wallaay as daf maa jàppale. <laughs> ndeysaan Go Faye. Go Faye daf maa jàppale grand. Abdou Abdoy maa lay nuyu bu baax. Go Faye wallaay grand Abdou Wahab maa ngi koy siyaar bu baax a baax a baax a mm-hmm. baax. Mm-hmm. sant sama waa ko ñëpp. Mm-hmm. Njaw Dieng maa ngi koy sant. Bamba borom business compagnie borom oto yi maa ngi koy sant bu baax. Xaadim Diop maa ngi koy sant bu baax moom da cee jàpp. jëkkati ay moyens def ci jafar ma ay tiset may ma. ndeysaan waaw di sant sama waako ñëpp mère sama yaay sama papa mère Wali Ndiaye maa ngi koy santaat bu baax a baax a baax a baax. Mm-hmm. Papa Ndiaye du Papa ne dootuma ko santati sax. ndeysaan nit du sant boppam. waaw parce que Papa Ndiaye maa ngi moom amuñu nëbboo. ndeysaan wallahi azim. daf mm-hmm. maa jël taf ma comme ku mu bokkal ndey ak maa ngi koy sant sant yaayam maman mm-hmm. faat ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla guddal fanam wéral cëram. waaw di sant sama waa ko ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp gannaaw goo fay Assane. Assane moo ñu yóbbu ci goo fay ndeysaan grand Assane ñu ngi koy siyaar bu baax a baax a baax a baax. Ali mm. Taban. Mm. Balla Ngom suñ benn sama benn mu naan sa sax sama rax la. Balla Ngom jàpp na ci combat bi. Mm-hmm. Ali Taban jàpp na ci. Mm-hmm. sama boy koñ ñoom ñëpp ñëpp. ñëpp jàpp nañ si. Mm-hmm. waaw. jaajëf am na solo. mu nekk xale boo xamante ne vraiment. ndaanaan mm-hmm. la ci làmb ndax mbër mu ndaw lii rek laam mm-hmm. daan sant ñi nga xamante ne ñoom lay ñoom ñoo leen di jàppale. moo tax bu ñuy sant dañ leen di bàyyi rek ñu sant ñëpp ñoo xamante ne jàpp nañ ci combat bi. wolof nag def na ku lim. doo juum waaye da dul matal. bëgg naa sant ñëpp. bëgg naa gërëm ñëpp waaye donte lu duufandoo ci nag bi. xajandoowul ci cin bi ñu koy jaajëfal bu baax. moom Mbacké Faye waaw ah, Ousmane Dieng. Pa ah, Ousmane Dieng Pa Ousmane. Hmm. Hmm. waaw di sant sama jaara sama jabar. ndeysaan waaw. waa kër gi non non jabar Pa Ousmane la mais guddi gi maanaam ay mu xam sa yu baax la ñuy defaral di ñu jox ñu <laughs> dóor. waaw di sant doomu meer Waly Ndiaye yëpp. Hmm. mu limee rek damay juum. dëgg di sant waa koñ bi ñëpp bàyyi ma kenn waa Corniche. koñ Saraxulay koñ Déranger Café ga. Baye Fall yëpp di ñaanal Vietop. combat bi mu jëm yàlla na ko suñu borom may ndam. Vietop man sama mag la. ndeysaan mag rek xam Vietop ma nga xam ñoo doon ànd ba nga xam ni ñu tukkee. Mhm. maa ngi moom ñoo doon di ñaanal képp ko Lamine Sène. maa mhm. ngi ñaanal suñu borom may ko ndam dafa am bëri combat bi mu jëm yàlla na ko suñu borom may ndam. Papa Sow yàlla ko yàlla may ndam. képp ku mbëru parcelle rek waaw képp ku képp ku mbëru parcelle rek. wooteel de. waaw <laughs> non ñëpp la ñuy woo. Siteu Baye la. Siteu hmm. Baye mais lamb la rek. Hmm. lamb la rek. Hmm. waaw lamb après lamb moom lamb day jeex quoi. dëgg la. waaw mais na rafet rek gara affaire bi moom daa a rafet quoi waaw di ñaanal ñëpp hmm. di sant di sant Papis Jegaan hmm. hmm. Serigne Ndiaye Serigne Ndiaye Serigne Ndiaye sama koy sant bu baax di ko gërëm démb làmb ji wóor na yàlla dama dem ba benn instant dama ko mujj sax yërëm ndeysaan avant làmb ji fu ne fu ne fu rek Serigne Ndiaye lépp koo xam ne rek mun na ma jàpp rek Serigne Ndiaye yóbbu na ma di sant Papis Jegaan bu baax a baax a baax a baax man laay Pythagore moo ma def mbër wallahi azim sànq suba rek mu ndeysaan. billaay wallaay laay Pythagore a ma def mbër. am na solo. waaw di sant Jegaan. Mor mm-hmm. Yigini. Modou Ladoum. Ikri bi. Pambay gépp barki alxuraan. Mbacké Faye mu ngi leen di sant ndax xam naa ne Mbacké Faye. ma laajee Pambay. ñëpp lay sant. Pambay uh-huh. man uh-huh. bu ma dundee ba dee te jàpp te defaluma dara Pambay. Mm. wallaay bu ma dee du ma yéene la yàlla na yàlla mottal. wóor na Serigne Touba bu ma dundee ba dee. te defarul mm. du ma ne Pambay. Mm. wallaahi bu ma dee du ma tàlli. ndeysaan Pambay dañoo am yéene ci moom. Mm. te yàlla na yàlla mottali yéene bi. amiin amiin amiin amiin amiin. bay de day ñëw géej ci sedd mm-hmm. topp suñu ginnaaw. dëgg la kon yàlla na yàlla mottali suñu yéene ci Pambay. Mm-hmm. Pambay bu ñu naree am dara te di ci lekk yàlla buñ ko yàlla may. amin yaa rabbal alamin loolu lu am importance la. jafe na mbër toog ci plateau gërëm ki nga xamante ni. Mm-hmm. mooy coach am te mbër yi dañu war di gërëm seen i coach parce que ki nga xamante ni moo la yee fajar yee la bëccëg yóbbu la guddi daj coono bu nekk bàyyi njabootam kooku boo ko santee jaadu na ñu leen di jaajëfal bu baax mbokk yi euh, Mbacke Faye lañ dalaloon di leen jox dig daje ba ëllëg incha allah ci beneen xew làmb jërë ngeen jëf.